wal sa moomee doon jéego milliardaire asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum partout dans le monde di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di wax ni vraiment julli nañu ci bisimilahi rahmaani rahim pare ci ci alhamdulilahi rabbil alamin am nañu ñu war a félicité nag ñi nga xam ni vraiment euh, wane nañu seen amour ak seen xol bu rafet ci julli gi am na ñoo xam ne ba après julli gi ñu ngi continuer di def lu baax maa ngi ci ñëw léegi tey émission bi booy Woz l'homme des états di sama rakk di sama xarit Boy Ndiaye Ousey Wëz Ousseynou Ndiaye Wëz Ndiaye laay wax chéri <coughs> Aïcha yaa moom émission bi tey ku ayee wal sa moome alors ñu dem xooli Viviane ak Wally Ballago Seck vite fait ñëwaat tey ay clip rek ak show avec Don Diego le milliardaire saoudien noir et Aïcha chéri Wëz jëlal bi boy Issa Laye validel let's go <laughs> down oh! jantal booy Wally Balago Seck chéri Soxna dara ñoom tamit vraiment Wally sa prestation ci tabaski bi ak sa vraiment social ci tabaski bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jot nañ ci yàlla na la yomb yàgg sa jabar mu continuer noonu te weer di ko wax félicitation toujours à Viviane et sa famille vraiment di wax tamit Weuz chérie Aïcha félicitations à toi vraiment social bi nga def di dimbale ñi nga xam ni vraiment say àndandoo la ñu nga tane leen yaa ngi koy def ànd seeg sa jabar jooju nga xam ni vraiment sa chérie coco de ton cœur porte bonheur la ci yow waaw vraiment Aïcha ñu ngi lay ñaanal loo mën ren nga mën ko déwén parce que vraiment euh, nit ku social nga te actuellement yàlla dafa soxla ku social ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa ñaari waajur yi sax boo socialul dañuy rëcc lu ñu la doon juree yow Aïcha kenn rëccuwul lu ñu la doon juree yaag boy wëz jantal booy doomu nday Issa Laay doomu tëngëj boobu nga xam ne di ci nuyu sërëm bu adorable boobu Tabara Ndiaye Tabara Tabara maa ngi lay nuyu madame Keita Tabara di une femme ñoom yande toute la famille maa ngi leen di nuyu di nuyu grand Tafa Diop aussi di féliciter toute la famille bi nga xam ni vraiment booy wës fa la bokk l'homme des États-Unis vraiment ba ca états ba booy bi nekk sax dafay def social di ci nuyu Pape Diop borom Tëngéej cité filao këri kaw këri suuf Pape Sanou jantal booy di copain di àndandoom vraiment euh, équipe bi yëpp maa ngi leen nuyu grand Michel grand maa ngi koy nuyu mooy grand Michel rek boobu ngada bi <laughs> boobu ngada bi <laughs> di ko bëggee di ko ñaanal bu baax a baax di wax waa Tëngéej yëpp maa ngi leen di baalu ak di leen euh, sant di leen gërëm ci tabaski bi vraiment di ci ñaanal tamit président Diène Marcel Diagne euh, def na lu rafet ci tabaski bi merci à toi merci à Birane Ndour Birane Ndour tamit def na lu rafet ci tabaski bi di remercier tamit son toute sa famille Birane gis naa vraiment gars yi nga jàppale di euh, nuyu tamit xale boobu nga xam ne vraiment mooy Momar mooy Momar Pata ñu gën nga xam ne Momar Gueye surnom di Pata di président mouvement Attaque booy boobu nga xam ne vraiment mi ngi innové ak expérience bi ko yàlla may gis naa ni vraiment président dina bàyyi ci yow xel parce que gis naa Lat Diop teg na la bët teg na la vraiment homme de confiance te te normal mu teg la ci wetam parce que sa expérience exploité goo ko ci politique bi ba pare te yaa ngi ko bëgg exploité foofu ca Géejawaay euh, gis naa da bëgg nga tamit di innové euh, ñu am centre boo xam ne vraiment dañu am site internet Géejawaay bi yëpp dootu ñu nam connexion idée boobu defe naa sa idée la la ci yàlla gunge ak sa président Lat Diop président Mboro El Hadj Amadou Tall maa ngi koy nuyu Abdallah Tall di président vraiment Mboro moom te di maire bu Mboro di président sax bu Mboro parce que moom mooy maire bi mooy président bi di def social di gox di soxaliwaat mbay mi vraiment installé fa des ingénieurs yoo xam ni ñu ngi ñëw pour vraiment taxawal taxaw ci mbayu Mboro te Mboro suuf si riche na ba pare décret bi génn na président nangu na jox ko loolu ñu moomoon muy seen ak ak yelleef boobu ñu moom vraiment président merci à toi Macky Sall yaa ngi def lu extraordinaire merci à Abdallah Tall vraiment El Hadj Abdallah Tall ah euh, euh, ñu ngi lay ñaanal le maire de Mboro di ci nuyu vraiment suma xarit boobu nga xam ni mooy Pape Amadou Ndiaye Senghor porte parole bu mag boobu nga xam ni mooy homme de confiance am di conseil vraiment di euh, jiite rajo bu mag boobu di PG PDG ca rajo bu mag boobu ca Mboro alors ñu dem xooli vraiment maxa isilis sama nag dégguma la moo tax du ma la invité tey de jëluma benn invité ñu waroon ñëw plateau bu bees bi ñuy inauguré ko semaine prochaine la invité di ñëw ah waaw di dinaa ko annoncé après wala après rek di ngeen ci euh, di ngeen euh, vous serez au courant di ko may encore toujours extraordinaire Weuz chérie Aïcha deuxième clip ñu dem xool yi ki nga xamante ni mooy pa ci ko la wee eh, Aïcha Aïcha ku ayewal sa mama chéri was di bëgg waa Saly di nuyu euh, mami euh, mami euh, mami Sabal Alizé vraiment i bu extra affaire bu extraordinaire fële ca Saly milliardaire yëpp di fa rencontrer surtout le dimanche di nuyu Asso Diallo di nuyu Fat Mbacké Fat Mbacké di ko nuyu di nuyu Prince Mbacké bala Aïssa Fat Mbacké jigéen ju mën góor maa ngi lay nuyu waa Tamba jot naa seen message ñu ngi remercier Wally Ballago Seck la famille taal ngol-ngol ami taal boobu nga yóbbu màkk mi ngi lay ñaanal di ñaanal sa baay fee mu tëdd muy ajanaam di ñaanal sa yaay soxna jaaga mu gën fi yàgg lool te wér parce que looy def waali da nga ciy waxtaan ak sa ndey bu sa ndey d'accordul amul sens sa yaay lu baax la la digal ñaanal la comme ni ma sama yaay ñaanalee wëz yaayam ñaanal ko booy wëz chéri ay Aïcha yaayam ñaanal ko suba la ñu war a ñëw nag ñu ngi fële ca Saly voyage d'affaires demee la ñuy ñëw ñu gise jeudi bi ñu gisee conclure génn dem jëli verre wala reer yi was jantal boy maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax di la ñaanal téléphone yi nag ubbi ko ku bëgg na woote di nuyu Fadiego borom restaurant bu mag boobu traiteur bu mag boobu ku bëgg lu baax xool suma jabar Fadiego mën na togg day sele day def sucré day def traiteur ba dix mbana sama jabar da koy togg mooy jëwrinu sëñ Moustapha Bachir di jëwrinu di jëwrinu Cheikh Modou Gueye nga xam ni Cheikh sëñ Moustapha moo ko cheikhal di jëwrinu màggal gi nga xam ni moom lañu def chaque année màggal Touba sëñ Mountakha Mbacké Balaye sax lépp bu ñëwee Ndakaaru fële lay dal Géejawaay amoo kaat lépp lu muy lekk ak waa group bi lu ñuy lekk équipe bi daayira bi sama jabar moo koy togg di ci remercier ni tànjeeme cuun fondation Maam Jaara boobu nga xam ne moom it jigéen ju man góor la ak mère Soxna Cuun ñooñu Serigne Touba rek la ñu nooyee mooy famille Maam Maajoor Cuun man famille boobu laa dugg moo tax ma mel nii sama ma defar ma ma sagal Ibu jantal booy di ko nuyu di nuyu Khadija gu tàcci mama abi félicité sama doom jooju nga xam ne jàng rek lay def papaam wës ak chérém Aïcha décoré ko vraiment wutal ko tablette bu cher bu un million ni ko jàngal ordinateur ma ne ko nag gis nga sa baay milliardaire la yi doomu milliardaire yi yor yooyu ngay yor fi doomu milliardaire yi di jàngee foofu la la sa baay lijjantil nga fay jàngee moo tax mu intelligente comme man jotuma réussir ci études yi ci école bi samay doom réussir ci école bi ak ñiy football réussir ci football bi di nuyu commissaire di nuyu Baara vraiment di nuyu Babacar di nuyu sama doom yëpp Marème Ndoye Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ah jantal booy di bëggee ñëpp daal alors ñu dem xooli troisième clip bi Aïcha tey émission bi ku ayewal sa moome yaag sa chéri wës yéena ko moom jox ma troisième clip bi defe naa titi la ñu may ko Aïcha di ko may waa Sali Pam Ndiaye Soare big up maa ngi lay bëggee bu baax a baax et dam nuyu naa la di wax waa Aïcha Mbaye tamit programme Aïcha Mbaye bi ko euh, wax Ndeye Mbaye ñu ngi lay siyaare Aïcha di jigéen ju man góor ya maman Aïcha ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di préparer sa événement bu mag boobu vraiment après l' événement bi di ñëw def plateau remercier kilifa diine kilifa aada yi parce que yow ta Aïcha Serigne saaliw moo la ñaanal yow ñoo bokk Serigne Saliou moo tax nga ñemee am fit loo matt mu dagg jub nga correct nga te sa alal lew na te lu lew ngay lekk moo tax ma ñeme la Aïcha Mbaye Kouthia ci edam Aïcha di ko may Pam Ndiaye soirée di may Tafa mais Tafa alors milliardaire nga ne nu muy waxatoo du waxatoo nii Tafa nee na une touche le milliardaire di def te c'est vrai milliardaires yi boo leen seetaanee documentaire yi wala ngeen leen seetaan leen tal bu ñuy waxatu malgré que mi ngi xasan mais du ñu def nii Macky Sall wala Macky Sall sax ñu taxaw di def nii Macky une touche rek lay def te pourtant mi ngi xasan mais ñemewu ko wokk wokk bu baax eh ñu dem troisième clip en attendant ma fomp euh, jël benn café ñëwaat allez Titi yóbbu gëm nga sa on t'aime bien Titi la diva adorée yàlla na sa baat bi gën a wér mais ami taal daal nee na ma la toute la famille taal di doom ci taal ngol-ngol euh, juricien bu mag boobu nga xam ne ci kër gi la nekk di dox ci dëgg di wax ci dëgg man taal ngol-ngol moo may inspiré waaw avant may nekk milliardaire laa ko xamoon quoi léegi bi ma nekkee milliardaire nag ma gën ko xam euh, jàppale ko ci fële ngol-ngol fa mu dëkk ma fay euh, am na fa ay projet tali jumaa yi li ma neex ci moom waxul waxu fo ay centre commercial ay ñeñeñe non non taal ngol-ngol ay jàkk ak ay juma ay daara yooyoo ko tax a jóg foofu mu dëkk ak courant bi ak ndox mi ñu gën a soxali mbay mi bilaay yaa am xam-xam <laughs> waaye ma it ni nga mel laa mel rek maa nga mbooro falaay bay jee e eh, ba jantal boy chéri Aïcha ku ayawal sa moome yaa moom émission bi mais toute la famille taal nee nañ ma gërëmal ñu bala Ballago Seck li mu ñu def rëy na ku jël nit yóbbu ko mu siyaare ji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ku sànni jamra sa aras yow it nga sànni jamra sa aras dajaleel say xeer ku tëmbal amital ku tëmbal tëmbalal ku yërndu kaaba ga yërndul ku wër kaaba ga wëral ku ni labayka laahumma labayka labayka laa sharika laka laka bayka indal hamda wal neexma laa sharika lahu ku ko wax nang ko wax waaw kenn ëppalewu la ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Wally Seck nag moo def loolu Wally jantal booy yow gëree di bëggee tamit euh, sama bopp di bëggee sama bopp mhm. parce que dama bëgg sama bopp moo ma yeggal fi ma yegg nii bëgg sama bopp être adorable set clean jaamu yàlla di julli yonent bi fu ma weetee rek waz waxal Aïcha fu mu weetee rek ne allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa sallim wax jàngoog booy julli ci yonent bi bul namm dara boo gëmee yàlla ji te lépp si suñu borom buur bi azza wa jalla bul namm dara fu sa pexe jeexee ewas eh, doomu tëngëj boobu borom Amérique jantal booy l'américain war yoor yaa allahu yaa rahmaanu yaa rahim yaa salaam yaa latif juróomi juróomi yàlla yooyu rek laa laa la sant nga door ko un mois après man ay bii laa ko sant ya ma jiidu yaa wadudu yaa zal jalaalil wal ikram yaa barru cha yow del del am habitude rek di wax yaa barru waaw yaa barru moom boo koy wax rek yoon bi day gën a leer te jigéen boy was jantal boy di frère ci tabara xale bu yaru yandee toute la famille ñu ngi noonu di famille bu baax la famille Tafa Diop mon grand moom nga xam ne à l'époque ànd nag ak Bob Marley grand Tafa Diop dund na ak ku ñu naan Tonor Dieng Tonor Dieng moo moomoon teeru bi à l'époque euh, euh, Kilimanjaro grand Tanor Dieng waaw moom it il a beaucoup fait mooy génération ñoom Cheikh Tall Dioum waaw ndax Cheikh Tidiane Tall waaw ak euh, Pros Pierre Niang moo nekkoon chef d'orchestre xalam 2 Souleymane Faye xam na li may wax Pape sa Diop xam na li may wax Youssou Ndour xam na li may wax Youssou merci jantal grand yow it waaw Cheikh Sarr Zik FM jantal boy moom it gëree la Alima ñu ngi def seen liggéey e Mbaye Kouthia yow it ngi lay ñaanal di ñaanal vraiment Cheikh Solution Cheikh Solution merci à tout à toi gis nañu sa taxawaay ci tabaski bi waa Touba kontaan nañ ci yow merci à Cheikh Solution merci beaucoup à Cheikh Solution merci et Alex di ko bëggee bu ko bu baax a baax Cheikh Alex Alex Club mu nekk Saly fale ñu ngi koy nuyu di ko bëggee bu baax a baax di encourager Mami Sabel di ko ñaanal bu baax a baax Élysée foofu mu ibbi ca Saly ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di wax maman Aïcha Mbaye programme baa ngi ñëw ku ayewal sa moomee nuyul ma Assou Mbaye Assou Mbaye ma Assou ak Waly yóbbu ma troisième musique kan la surprise Aristide let's go down everybody back Chikolo way avec Rose et Aïcha ko ñaari wal Demba Hamadi Jaage ngam usire la mi gran o oh, debbo woni darani ɗo boteji rewɓe sehir sukaɓe sin cuba yesaay Baba Belji maal mi ngi noonu ñu koy ñaanal vraiment bat bi gën a weer mu réussir nag euh, Zénith bi vraiment Baba Zénith sa yëf la voilà Zénith sa yëf la Youssou Ndour Bercy yëfam la voilà ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax Miss Kolda Awa Diallo ma fi yi mang lay nuyu di la bëggee bu baax a baax a baax a baax gëjoon naa la gis namu naa la nee naa leen ku ayee wal sa moome Sophia Thiam mi ngi ñëw toroxal seytaane moo Khadija ak keneen kooku nga xam ni mooy Mbodja Batikolo mais Mbodja ana général mais Mbodja où est général Mbodja bul wax dara Sofia ñaar xam na waaye ñett xamu Mbodja fexe nga ba dugg ci groupe bi ba xam kuy général ak colonel man dama tay ci mboojo alo may nuyu korom ak fay nee naa leen benn saltige moo fi ne saltige yëpp du ñu saltige saltige séeréer pire mooy korom ak fay xaritu baayam moom moom nga xam ni mi ngi liggéey am ngandi projet des milliards et des milliards pour doomu aadama yi korom ak fay yàlla nga fi yàgg te wér fay biram penda waagaan sa maam buur la sa baay buur la yow buur nga saltige nga saltige nga lépp nga korom ak fay séeréer boo xam ne la bu mattee weñ mu damm bu mattee weer mu damm yàlla na la yàlla wéral sa wér gi yaram korom ak fay séeréer pire mooy korom ak fay añaaja andi ki rek di nuyu Moustapha di def liggéey bu rafet mook bàcc li vraiment Tafa saw maa ngi leen di nuyu di nuyu Khadija Khadija Patra buñ ko waxee innovation bi daf ñu jox yaayam gaynde googu nga xam ni prouvé na wane na lépp lu mu war a wane jël doomam nag samp ko doom ji di xale bu ndaw am fulla am fayda am na ci kilifa yoo xam ne dañ may gis si télé bi naan ma jéego jon jëntel ma numéro Khadija rek la leen te ngeen yem seen jabar yi rek la leen tengeen ngeen yem seen jabar yi kilifa bu ma wooti naa la yoole yéen xam nga ni namu ma dara tant que je suis avec général je suis capable de dire tout ce que je voulais ton jego di nuyu tamit Baye Diop Baye Diop di sëriñ bu mag bu gëm boppam moom pal di taalibe Cheikh yor kurus lu mu wax dëgg la yor alxuraan lu mu wax dëgg la Baye Diop yàlla na sa jàmm yàgg Baye Diop ni nga ma def du ma wax sax Thierno Ahmad saw tamit maa ngi lay nuyu di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di wax ni àdduna amul solo Sofia Thiam loolu laa koy wax mu ne ma jéego bi laay wax nga dëgg adduna amul solo léeg ma dégg ko ne ko Sofia kat am na solo mu ne ma lu tax nga ma ne ko laajal Manick Manick nga xam ni jàngee ti Tiwaawan Manick jàngee na Kaolack Kaolack la jëlee werd Manick ba muy jël werd am na 17 ans la jël werd di ku set du moy ute naag ay collaborateur am yoo xam ne mooy rek lañ fi nekkee yàlla nañu yàlla sol si ñoom taal ngol-ngol nee na ma ah, kii day mooy kii yor karab ah, dabba taal ngol-ngol nee na ma waxal dàbba mu bàyyi mooy bi yal nañu yàlla musal ci dàbba alors ma leen di tàggu di leen wax ni ku ayewal sa moome di wax ni vraiment maire mbooro bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax jaara afia ñu ngi lay bëggee di nuyu euh, alaaji euh, monsieur Tall alaaji euh, kii maire maire maire Mboro alaaji Tall El Hadj Tall laay wax El Hadj Tall projet tali projet tool yi mu war a soxaliwaat suufu Mboro tous ces projets yëpp mënu ma ko wax ci tale bi maa ngi lay remercier di la ñaanal vraiment pa El Hadji Amadou Tall Amadou taal yàlla na yàlla wéral yaram bi wér yaram bi kattan santé une très bonne continuation li nga mébét ci Mboro yàlla na ko yàlla sottal du ci nuyu tamit Pape Amadou Ndiaye Senghor émission bi nag gàtt na neex na gudd na gàtt na Aïcha yaa ka moom li ñu sunu naan Aïcha never forget Aïcha never forget Aïcha bu ma fàtte taw avec